waaw luñ si xaar euh, lu bëri la lu am solo euh, at si Sénégal dafa génne ben loi bu bees ñu ko code minier en 2016 bu remplacé code minier bi fi bu daté en 2003 ñeenti at nag biñ ko bi ñu toggee loi ba donc jar na ñu sept seet saytu xool

ak aussi benen fonds day ministère des mines mu ay euh, euh, zone yu la nañ fa dem wala jox ko aussi secteur privé sénégalais secteur minier Sénégal bi donc thème yu euh, si la ay borom xam-xam yu yëngu secteur minier société civile euh, discuter si euh, def recommandations recommandations yo ñu président de la république mu xol naka la euh, en tout cas plan Sénégal émergent ak actuellement plan d'action prioritaire aussi bu Covid 19 coronavirus bi mu économie nous yu bëré donc secteur minier d'abord lay si coronavirus mais aussi luñ ci jàngatee ba beneen yoon lu mel noonu bu amee mu ban a bañ a gàllankoor en tout cas économie bi ak activité yi ndax sénégalais yu bëri ñu ngi siy liggéey euh, trésor public am na lu bëri lu muy séntu si secteur minier bi naka la ñuy def daal ba mu gën a ful mu gën a amal njëriñ askan bi amal njëriñ ñooñu aussi indi fi seen ay xaalis am si njort am si yaakaar ñëpp daal génn si